ngeen dal di xam ne borom Touba ay borom Touba jug leen taxaw déglu lii may wax borom Touba ngeen daal di xam ne borom Touba ay borom Touba jug leen taxaw déglu lii ngeen daal di xam ne borom Touba ay borom Touba bu leen ma tànqal ni ngeen jëlal ku jug na ni te bañ ci tàng xam lu ngeen xam tey borom Touba. ci ma leen di yëngal lu bët gisoon la boon mu xëy di gis ko te lii jagleeg borom Touba te bu dee ji ba déggoog xol yi sa xoogam ngeen biral ne ka tànnee foo borom Touba ci kaw sëriñ si ñu gis ak kaw sëriñ si ñu xam te ñoo fi jébbalu xëy jiital borom Touba. jibbal ko jàkka ya sa koo jub taxaw fa gannaaw dëkk si kartana barke borom tuuba dëkk si kartana barke borom tuuba te booba ku jus xibub jamono bi am feew ka lii wuca jiital borom tuuba buur yàlla moo ko fi jiital tey ci kaw lu tuluk te firnde yi laay leeral ñooy tuuba yóneen ba may na ko yóneen ya ñoo ko amoon mu dooni tas tey da ko booleel borom tuuba bay mindi fi jikkoom yóneen ba moo ko jagoo mbooloo mi yërmande moo jikkoy borom tuuba xam-xam ba siiseemoon ci yàlla muy lu tasoon diggante gaaña la booleel tey borom tuuba idrisa yóneen ba daa dëkk durus abadan googee durus moom la jagleel tey borom Touba. njambaar ga noon borom fergaat gu rëy ga jagoon moom la yaaram ba jagleel tey borom Touba. kàllaam gi jël ni keroog tafaan jël ni si tey ci xiiti Ahmad mi jiital borom Touba. lu doon fasaak ba maasaar ga moo ko jago maanuk sooy buga mooy maanuk borom Touba. Ibrahima silwaamoon ba doon xarit ga la yónneen jox borom Touba isa xabaale na leen jagleel borom tuuba lamiñu yaaramu ismaila ngaramal isa xabaale na leen jagleel borom tuuba seex samba jaar ma yeena xikam yelootu njagoon ak yem ca gannaawam aji jikkoor na jagleel say borom tuuba seetlu gu wekkiil lu ko dal yanqo mbir ma dikkal ko moo ko dal mbir muy dikkal borom tuuba lirug bi diwu cosaanel taar ba yuusufam nuuru jalaalaga feeñal leeg borom tuuba cosaanal taar ba yuusuf am nooru feeñ àndeek borom tuuba seex taar ba yuusuf am nooru feeñ àndeek borom tuuba taawiin ja ak faddu gaag dambam ya boole na ko serep andaaram ya tey jagleel borom Tuuba kattan gu tar gaca muuseeg waxante waag jiyee diwu soo tey jagleel borom Tuuba debbu su mooy dun xeef yooyu dara day dun xeef yooyu dara mooy junjub borom Tuuba debbu su mooy dun xeef yooyu dara tey dun xaafi ay dara mooy junjub borom tuuba wakiil gu mat gëcë iriyaas muñ gu wér gu rafet gaan caayaaba yoo yaa nga ak borom tuuba xam-xam baam ca xudar baatin ba moo ko jogo giijug borom jënoo mooy giijug mooy giijug borom tuuba teeluute dikke na maal gaag la mu tëj ni ki nii la maaliku dikki biir tënkal borom tuube daawuda rey gamu rey jaaluuta na ko jaaluuta mbakkan ruuy jug ànd ak borom daa tari saabuur moom la bamba tare furxaani ahmadu mi njiital borom tuuba fettuk suleymaan ga barkeem baay catal xalimaam nguurug Suleymaan nga mooy nguurug borom Tuuba nguurug Suleymaan nga mooy nguurug borom Tuuba nguurug Suleymaan nga mooy nguurug borom Tuuba Cheikh Samba Diarra Mbayeen na Cheikh Samba Diarra Mbayeen na fettug Suleymaan nga barkeem baay catal xalimaam nguurug Suleymaan nga mooy nguurug borom Tuuba buur yàlla may na ko xéewleel baa ka jaggi may sag may la jaax liisa borom tuuba mihrab ma zakariya nekkoon di jaamu boromam moo ma moo di mihrabu borom tuuba jugam ga waxtu wa muy la tàmbali ko bon ba tey loola mooy mbaaxu borom tuuba musal ga buur yàlla jagleel doomi Zakariya Yahya musal googa muy muccuk borom Tuuba Yahya musal googa muy muccuk borom Tuuba cofeel ga buur yàlla jagleel daan yàlla jagoo dëddug masiiw ga muy dëddug borom Tuuba te tey dojog la Zul Xarnayni xëy sa xaloon te musal la Sëriñ Tuuba saxal Tuuba alhamdulilah rabbil aalamiin baril ak cant war na nun sa pey borom tuuba buur yàlla mooy sunu buur bambaanu boot bis nun sa pey tuuba tafal ca gannaaw liggéeyal leen borom Touba doy na yaakaar liggéeyal leen borom Touba yeneen ba jiitu borom Touba tafal ca gannaawam doy na yaakaar liggéeyal leen borom Touba yéen ba jiitu borom Touba tafal ca gannaawam doy na yaakaar liggéey leen borom Tuuba kon ñaan rek la ñu mën a def ñaan ko ci am def jeexal waaw koy ñaan nanu xëcc ba yóbbu nu ñoo ñee jëkkoon ànd ak moom nu tabu ja ñoom ànd ñoom jëm jëm mu jëme nu fu ñu fu ñu fu fam lañ jëme